chers amis de bu TV ñoo ngi nuyu bu baax baax di leen bëgg ñu ñëw fi ci diwaanu Pikine di def nak ay ay ay reportage ñoo ngi nuyu di dalal ben soxna bu ko defé xamna dañ koy nuyu bay ko mu nuyu mbokk indi solo ci ma ngi lay nuyu bu baax baax ah, tour bi ak sante bi awan jaay ah, ndox mi mbaa mu ngi jaar ah ndox mi daal a ni rek xana yokute bu metti rek ah, naka dekk bi dekk bi mi ngi ni rek ñoo ngi sante yalla bu baax baax baax baax da am lu ñu doon laaj legi nest pas yow julit nga legi dañ doon laaj takusan ñaata ñaata raka, la takusaan ñeenti rakka. ñeenti rakka. ñeenti rakka léegi boo so soo soo demee bay julli léegi comme premier raka bi eh, da ngay tari faate wala doo tari faate. damay tari faate waaw. maanaam so so léegi boo taree faate soo rukkee lan ngay wax. ah ñaan rek ñaan ci yàlla rek. ñaan ci yàlla rek laay def man. waaw comme wolof ni mu koy defee rek laa koy defee waaw. waaw kon kon kon nak soxna ci nee mom non non non non dal la ko jàngatee legi legi legi léegi yow euh, amo benen benen benen comme ni koy nit ñi defee yow mënoo ko defé noonu comme mm, genre baña wax ci wolof amna yenn ni koy arab di waxee comme yoy non ci wolof rek la koy wax ak yépp rek dal ñaan rek ñaan ci yalla dal ñaan ci yalla rek waaw. solo ci no def. may ngi sant yàlla ba. Euh, bi ak sant bi. Mbène gay Mbène gay gay naka liggéey bi. maa sant naka dëkk bi mba xay sa ngam waaw nank nank rek dañuy bu ñu jógee rek daal di daan suñu doole. waaw yéen jigéen ñi daal leen xaalis Sénégal yéen a ko ah, tuuti tuuti rek sant yàlla bu baax. <laughs> kon baax na mbir gay dina am lu ñu la doon laaj n'est-ce pas jullit nga. waaw léegi euh, takkusaan ñaata rakk la. waaw juróom. juróomi rakk la takkusaan. juróomi rakk waaw booy dem euh, léegi euh, takkusaan nee nga juróomi rakk la léegi rakk bu njëkk bi lan ak lan ngay tari. Fati ak saar rek Fatiha ak saar waaw. waaw léegi premier rakk bi soo soo soo sëggee sëgg mu malam bi looy wax. da ngay kii soo maanaam soo toogee di malam non non maanaam waxuma taaya de maanaam soo malam maanaam looy wax. soo rukkee. waaw maanaam boo sëggee jàpp say tànk sa om. Um. ah subhaana rabbi al azim. subhaana rabbi al azim. waaw maanaam boo siggee looy wax. bu ma siggee. <laughs> ah mbokki internet yi kon ngeen gis ngeen ko mom. soo jàppee say oom ba ba siiwaat ba taxaw danga naa sami allahu liman hamida kon nag yéen ko ko déggandoo moom nee na euh, takkusaan juróomi juróomi rakk la léegi nag soo sëggee maanaam soo rukkoon da ngay wax subhaana rabbil azim soo sëggee sami allahu liman hamida léegi timis ñaata rakk la. non ñett la. timis ñett rakk la. Mm-hmm. moom it looy euh, premier rakk bi looy wax. ah Fatiha ak saar rek saar boo ci teg rek baax na. Mm-hmm. léegi maanaam mm, premier taay bi looy wax. premier taay ah attahiyaatu lillahi asakiyatu lillahi tayyibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayyuhan ala ibrahima wala ala ibrahima macha allah kon nag yéen a ko gisandoo soxna moom jàmbaar la waaye rek daa mel ni léegi nag xam naa takkusaan kon nag nag dafa tiit euh, n'est-ce pas julit nga ah, waaw julit musulman la maanaam euh, dañ la laaj maanaam timis ñaata rakk la timis léegi euh, ginnaaw bi nga yow ginnaaw bi nga jàpp ba pare taxaw si jaare bi euh, premier rakk bi looy wax. premier rakk da nga teri faatiha saar bu la nga teg ko ci. waaw léegi maanaam boo rukkoo sëgg jàpp say loxo say tàng looy tari. naan subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi waaw. léegi boo sigee looy wax. boo boo sigee suuf. subhaana rabbiyal allah wa bihamdihi ngay wax ñetti yoon. Hmm. waaw léegi premier premier euh, premier maanaam premier rakk bi deuxième rakk bi soo soo toogee taay wax. soo taaye kooku da ngay julli Seydina Mouhamed ngay ngay taaye ah Seydina Seydina Mouhamed taaye kon da naan allahu ma am ndal lillaahi lillaahi mi daay mi daay mi sifaayi amul loolu nga xam ne naan ataay ataayatu lillaahi lillaahi mi daay al allaka wa nabihu wa rahmatullahi wa salamu alaka ala nabi ala Ibrahim asalu la ilaha illa asalu anna muhammadan abdu wa rasulullah solo ñu lay nuyu bu baax baax no tuddu ñu lay delo ziar bu baax tur bi ak sant bi jaar saña soxna jaar la soxna jaar la dina ci walum julli euh julli euh, takusan ñaata rak la euh premier rak lan ngay wax premier rak bismillahi rahmaani rahim ak qul a'uuzu bi rabbin naas ak qul a'uuzu bi rabbin naas waaw. deuxième rakk bi boo sëggee euh, maanaam soo jëlee say loxo teg say say say tàng loo nga wax. subhaana rabbiyal aziim waaw. Ah. maanaam boo sujjotee léegi loo nga wax. subhaana rabbiyal a'laa. mbokk énergie yéen a ko déggoo soxna Diarra nee na moom euh, euh, takkusaan ñeenti rakk la boo teree faatee da nga ci teg xonse bi nee na rukon euh, subhaana rabbil azim ak subhaana rabbil mais bu ñu doon laaj dëkk bi noo ko gisee looy wax. ah léegi moom dafa jaxasoo léegi moom. jeunesse bi léegi euh, jigéen ñi amatuñ repère góor ñi amatuñ repère boo amul loolu nag conseil loolu la wax. Ah, daal toog benn place parce que